suñu gan Seydou Diouf la moom moo jiite commission finance ci assemblée nationale ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm honorable maa leen di fay di nuyu euh, ñi ma fekk ci plateau bi yëpp. Hmm. Chérif ñu bàyyi la nga tàmbali waxtaan bi. waaw jërëjëf ni nga waxee noonu commission finance assemblée nationale yaa ngi jiitu président Seydou Diouf lu bat ëpp ñaari weer a ngi nii sax yéen ngoon ci travaux yi commission yi dem ngeen plénière voté budget bi on a vu ce qui s' est passé également cette semaine mais laataa loolu on reste à l' assemblée parce que sa collègue di Cheikh Abdou Bara Dolly daf ne bi commission bi jeexee travaux quatorzième législature dañ ko installé biñ ko installé législature yi jiitu woon yëpp gisoon nañ ne député yi dañu am ay oto ci bi ñu ñëwee installé quatorzième législature di examiner budget assemblée nationale dañ ne woon du ñu jox assemblée pour ñu jënd oto mais à partir de 2023 chaque mois député yi dañuy am indemnité indemnité boobu ci li ñu budgétisé mu ngi tollu ci cent mille francs donc l'État nekk dans une stratégie de rationalisation de ses dépenses ba tax ministres yi directeur généraux yi HCCT institutions yi jëndatuñu auto personnel pour les députés hmm. donc comme dañu ñëw nekk législature bu bees député yu bëri ñu doog a yegg si assemblée amuñu oto ñi dëkk ci région yi amaguñu chambre hôtel des députés ñi jël ay appartement loué pour mën a def seen liggéey indemnité yi ñu leen waroon jox mensuellement prévu dans le budget c'est sept cent mille assemblée jël ci gafagam ne kon nañ leen jox indemnité de cinq cent mille pour la période budgétaire te ni ñu ko defaree député yi noonu le président assemblée nationale aussi accordé des indemnités aux agents de l'administration de l'assemblée nationale léegi euh, est-ce que kon législature bi duñ am euh, oto wala da ngeen di continuer indemnité waaw non non non cest dire que ci législature li ñu jàpp mooy ci état bi may wax ak yow nii budget assemblée nationale li tax mu yokk c'est parce que dañu intégrer indemnité mensuelle pour les députés de cent mille francs pour mu nekk li nga xam ne moo waroon a remplacer oto bu ñu buggoon jënd. pour que maintenant après député bu ci nekk yaay xool ndax da ngay jënd sa oto parce que toutes les législatures antérieures dañ koon jënd ay oto mais comme état dafa nekk dans une logique de rationalisation. Hmm. nee na dootuma jëndal oto. assemblée du ma jëndal oto ministre du ma jëndal oto DG du ma jëndal oto HCCT et dans les autres institutions conseil économique et mm-hmm. social. Mmh. on donne des indemnités à la place maintenant ku jënd oto. mais lu gën a sakkan est-ce que jéem nga def xayma pour xool indemnité wala jënd oto lan moo gën a sakkan. non xam nga tey boo jëlee oto bi nga xam ne dañ ko jëndal député yi. Mm-hmm. wala ñu jëndal ko conseil économique wala ministre yi oto bi saa yu paane état mooy jël en charge la réparation. Mm-hmm. c'est ça aussi qu'il faut comprendre. logique ou rationalisation bi loolu la quand l'État a vu ku yi nga xam ne au-delà de la des coûts d'acquisition dafa nekk de coûts yuy tegu ci acquisition bi état bi di ko supporter l'État a préféré et ça a été une mesure boo xam ne depuis presque deux ans dañ ko commencé dans l'administration centrale tey mu toll ba yegg fi ñu aujourd'hui boo xoolee les factures de réparation des véhicules à l'Assemblée nationale c'est des factures qui sont extrêmement élevées. Mmh. donc loolu aussi c'est une logique de rationalisation. Mhm. boo amul question ci wàllu transparence bi léegi ñu dem nag ci li nga xamante ni moom moo xewoon dem ci assemblée nationale jëm ba léegi rek ci motion de censure bi on a vu ko finalement ça a été rejeté est-ce que am nga ci mbetteel. non aw ci awma ci awma ci mbetteel euh, li tax aw ma ci mbetteel mooy d'abord euh, ñun xam nañ assemblée ni mu tëddee majorité dañuy wax euh, majorité amu fa. il y a une certaine majorité relative de Benno qui aujourd'hui compte 82 députés après la défection d'Aminata Touré mmh. mais xam nañ ne Wallu c'est aussi des députés c'est un groupe mmh. contrairement à li ñu bëgg gëmloo opinion bi dans la démarche de Wallu Wallu nekkul assemblée en logique d'intercoalition ak Yewwi dañoo am seen autonomie d'appréciation mmh. même dans l'examen de la loi de finances boo xoolee budget yëpp ni mu jàllee en plénière nga xam ne yaa une majorité boo xam ne construire nañ ko et tous les jours le minimum de voix yi budget yi daan am c'était quatre-vingt-cinq doon na dem fois ba quatre-vingt-huit quatre vingt donc loolu moo lay wan ne euh, au sein même de l'opposition certains dañu am une démarche d'autonomie d'appréciation parce que c'est des parlementaires dunduñu un mandat impératif loolu moo tax ñun bi affaire bi amee xamoon nañ ne d'abord un ci démarche Yewwi yi quand man bi ma gisee exposé de motifs ak signataires yi j'ai dit que été dañu def cavalier sa mais boo defee cavalier sa dañoo ber seen yoonu bopp dañoo ber yoonu bopp boo indee sa motion de censure signé ko sa njaboot cote waxtaanoo ci ak ñeneen composantes yi nekk assemblée nga jàppoon ne ñooñu war nañ cee mën a ànd mooy yow sa bopp créer nga condition pour que li ngay teg sax bu jàll loolu muy benn ñaareel bi aussi xam nañ ne comme ni ma leen ko waxee ci biir wàllu parce que wàllu a été en responsabilité dans ce pays il faut pas l'oublier ñoom xam nañ lan mooy majorité parlementaire xam nañ lan mooy relation entre majorité parlementaire ak un gouvernement te constitution bi nga xam ne ci biir exposé des motifs motion de bi en réalité li ñu wax mooy constitution bi Ablaye Wade proposé woon référendum 2001 mhm. nekkul constitution bu baax parce que dañ ne Sénégal y a une verticalité du pouvoir euh, au président de la République mais loolu c'est le fruit d'une constitution bi mhm. nga xam ne Sénégal moo ko moo ko am après tirant les leçons de 1962 ce qui s'est passé okay. Sénégal entrait dans l'ère d'une d'un régime politique. Mm -hmm. beaucoup plus tiré vers la présidentielle. mais ban conséquence politique à votre avis la ñu a tirer sur ce qui s'est passé hier. mais ce qui s'est passé hier je pense que c'est un camouflet pour Yewwi c'est un camouflet d'abord ce n'était pas opportun et je pense que les Sénégalais ont compris que affaire bi c'était pas opportun parce que y a rien qui pouvait justifier que premier ministre ñëw lundi def déclaration de politique générale wax fan la war a jëm. ñu voté leen budget mooy li ma leen wax dem nee naa leen assemblée dafa am ay responsabilité xam nga la mooy suñu responsabilité voté loi contrôler action gouvernementale et évaluer les politiques publiques waaw ginnaaw bi ñu voté budget premier ministre ñëw def déclaration de politique générale li nga xam ne moom la assemblée war a mën a am comme positionnement mooy taxaw pour que ñu vérifier ndax budget boobu ñu ngi koy exécuter correctement d'autant qu'on est dans l'ère du budget programme maa ngi dégg léegi Souleymane de manière très pertinente di ko rappeler euh, dañu am ay jumtukaay tey ñu war a mën a permettre ñu saytu exécution je pense que si on veut crédibiliser l'Assemblée nationale ci lu mel noonu lañ koy crédibiliser mais pas ci ay ay tactique politicienne parce que tactique politicienne moom il faut nga am majorité pour nga mën a atteindre ses objectifs mënoo ñàkk majorité bi bëgg rek mobiliser un gouvernement pendant vingt-quatre ministres yi toog autour du premier ministre pour des choses qui ne reposent sur absolument rien je suis désolé parce que boo xoolee même le contenu de l'exposé des motifs nga xam ne c'est des choses qui sont tirées par les cheveux pour exposer les motifs bi ko le président Birame Souleye présenté mais tous les autres collègues de Yewwi bi ñu jëlee parole mais ñoom waxuñu ci li Birame Souleye wax ils ont parlé d'autres choses C'est comme s'il faisait à la limite du racolage d'arguments pour pouvoir expliquer, expliquer leur motion de censure. ok Chérif mu ngi wax léegi euh, crédibiliser Assemblée nationale à travers taxawaay bi ñu war a am gis nañ ne temps yi li lëmbee mooy euh, coowal détournement ak luubal bi ñu nemeeku ci fond Covid bi loolee euh, lan la mën a xaar ci Assemblée nationale bu weesoo liggéey bi nga xamante ne waa Cour de comptes def nañ. waaw mais xam nga Cour des comptes liggéey c'est un rapport quand bien dafa nekk dans le cadre de son programme annuel mais Cour des comptes crédit yooyu mu saytu c'est des crédits d'une exécution budgétaire donc rapport d'exécution budget 2020 2021 bu ñëwee assemblée dafay comporter élément de réflexion yi Cour des comptes indi maintenant il y a deux choses parce que xam nga ñun bu ñuy contrôler budget d'ailleurs c'est la seule fois où ci constitution ñu conférer assemblée nationale la mission de contrôle mooy dañ naan la cour des comptes assiste l'assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution de la loi de finances autrement exprimé c'est une question boo xam ne dafa sérieuse pour que assemblée bu koy jël warul nekk de question politiciennes dañ ko war a teg ci saytu boo xam ne dafa wóor moo tax cour de comptes par exemple loi de règlement yi gis yëpp ñu koy coow cour des comptes tant que jotuñu ñun rapport d'exécution au Cour des bu ñu mën a saytu loi de règlement parce que bu boobaa day mel ni ñun loi de règlement bi ñu gouvernement bi indi rek ci la ñuy basé wu pour saytu or pour ñu mën a saytu saytu bu normal il faut que ñu jot projet de loi de règlement bi mais il faut que ñu jot rapport d'exécution au Cour des comptes waxtaan ak Cour des comptes ñu tijji suñuy bët ci yenn ñoom yi ñu gis et à partir de là ñun ñu mettre en œuvre donc loolu dafa am solo maintenant la Cour vraiment maa ngi maa ngi saluer ah tout maa ngi maa ngi déglu l'analyse de de de de Souleymane euh, prolongement bi ma ciy indi rek mooy wax nañ ko cour bu defee euh, un audit identifier des manquements si c'est des manquement administratifs day def ay recommandation su fekkee ne un comptable dafa fay lu mu warul fay parce que jàppale ne comptable bu nekk bu ñu lay nommé en fonction attention da ngay am la cour dafa am ay exigences dañuy jël sa alal dañ ciy teg loxo tant que yow génnoo ci fonction comptable ba ñu defal le mainlevée sa alal ci loxo cour bi lay nekk loolu moo tax cour bu constaté ne da nga fay loo warul fay dafa lay woo chambre de discipline budgétaire bu ñu la condamné foofu dañ lay mettre en débet maanaam li nga fayoon waroo koo fay da nga koy rembourser soo ko amul ñu jël ko ci sa alal leneen li mooy cour bu fekkee ne dafa constaté ay infraction yu relevées du domaine du pénal comme par exemple lu jëm ci détournement de deniers publics la loi organique sur la cour des comptes daf ko permettre mu saisir le procureur de la république pour déclencher des poursuites judiciaires ça veut dire donc ci organisation bi ñun suñu appréciation en tant que commission des finances en tant que nationale dañ koy def sur la base de l'exécution du budget et du rapport de la cour des comptes mais rien que cour quand bien sax ci programme annuel am la suñu envoyé rapport ñun mën nañu convier les différents responsables incriminés ñu xool lan moo indi situation bi donc ay ay variante la euh, cour am na lu mu mën a doxalal boppam ñun assemblée am na lu yoon sant et je pense que c'est ça le principe de la séparation des pouvoirs ku ci nekk honorable ci li yor ndax mun nañu ci xaar ak coow lu bëri léegi yëpp ñu am commission d'enquête parlementaire pour gën a càmbar mbir mi nan la demee situer responsabilité yi. Ouais, waaw mais ça dépend xam nga bu fekkee ne par exemple cour dafa constaté nekk dafa am euh, des infractions relevant du domaine du pénal ba moom mu déclenché poursuite judiciaire bu boobaa commission d' enquête parlementaire mënatul am. parce que commission d' enquête parlementaire mënul am ci loo xam ne sa fait déjà l' objet l'ouverture d'une information judiciaire. Mmh. Mm. alors euh, euh honorable euh, tout à l'heure on parlait de perception que ça soit euh, ren muy rapport Cour des comptes bi barki démb ARMP daaw daawaati géej sénégalais yu bëri perception bi ñu am mooy ci at yi lay weesu ay kilifa yu ñuy dénk alalu réew mi dañ koy luubal te dara du leen ci fekk loolu lan nga leen mën a wax waaw xam nga xam nga loolu lépp lu ci nekk nañ ko saytu aussi avec beaucoup de prudence parce que souvent da ngay dégg ñu ne diw épinglé ngeen ko Euh, lii wax nañ lii après bon voilà ñu génnaat gis ne loolu amul moi j'estime que euh, institution comme Cour des comptes bu demee ba jël temps audité ah ba gis yenn yi mu am procédure mu am possibilité moom ouverture d'une information judiciaire mu demander procureur de la République je pense que c'est la responsabilité de la Cour des comptes ce n'est plus la responsabilité de qui que ce soit mm-hmm. bu fekkee ne c'est par exemple l'IGE moom moo def rapport saytu gis ne lii am na lu ci jub wala lu ci jubul loolu IGE du déclencher directement day remettre le rapport au président de la République qui donne suite à ces à à ces choses qui ont été vues donc ku ci nekk am nga responsabilité ñun assemblée nationale li ñu xam mooy bu fekkee ne percevoir nañ ne fii quand bien même poursuite judiciaire déclenché wuñ ko te am na problème bu ci am jaat nañu laaj ouverture d'une enquête parlementaire mais boobaa on met en place une commission d'enquête parlementaire commission d'enquête parlementaire dañ koy jël à l'initiative de députés cest dire que y a nombre de députés déterminé mën nañ jël proposer une résolution à l'Assemblée nationale pour que ñu mën a jël une commission d'enquête parlementaire. ce que je veux dire mooy yow nga xam ne da nga bokk ci mouvance présidentielle bi ñu bëri ñu ñuy tudd yéen a bokk camp loolu lan nga mën a wax sénégalais ci ñi nga xamante ni dañoo jàpp ni yéen ay ànd te ñu leen ni dañoo sàcc alalu suma niveau de responsabilité xam na laa xam gis benn rapport exploité ko gis ne lii luubal la mais mënuma aussi basé wu ci uniquement dañ ne ñii luubal nañ parce que y a plusieurs cas yoo xam ne dañ naan tel a été épinglé alors qu'en réalité il y a jamais eu de rapport qui confirme que tel a été épinglé une question non bii c'est la cour des comptes non c'est la cour des comptes li mu la wax cour des comptes génne na audit hmm. cour de comptes am na les instruments yu ko permettre moom bu fekkee ne li li mu bind ci rapport am c'est des choses avérées qui sont en infraction avec les procédures financières comme ni ko Souleymane waxee mais am na loo xam ne moom am na ay jumtukaay maintenant ñun jotaguñu rapport maintenant bu ñu jotee rapport Cour des comptes su fekkee ne Cour des comptes déclenché wul te il s'avère qu'il y a des faits délictueux présumés mais ñun mën nañ def une commission d'enquête parlementaire. Mm-hmm. rien ne l'empêche. c'est pas kii mais bu ñëwee est-ce que assemblée nationale aussi ñu ko doon wax même di contrôler yéen aussi maanaam koppar ya fa nekk ak nañ koy jëfandikoo dafa mel ni yoon ci wàllu transparence pour ni ko defee ci yenn institution yi. ça ça je que ñun assemblée dañu war a avancer ci wàll woowu euh, man à un moment j'avais même proposé bi ñuy repenser le règlement intérieur mais tenant compte de l'urgence on avait dit on va gérer de mode vote mais pour man même les les les les dépenses de l'Assemblée nationale que mu nekk les marchés que mu nekk les billets d'avion qu'on achète c'est des choses yoo xam ne rien n'empêche que ñu jaale ko en procédure de passation de marché mm-hmm. absolument rien c'est-à-dire que le principe de l'autonomie administrative et financière de l'Assemblée nationale ne doit pas nous sortir du cadre de la recherche de la transparence loolu aussi il faudrait que ñun ñëpp ñu xam ne réew foofu la tollu tey c'est-à-dire il partout où on est même boo amee autonomie administrative et financière war nga mën euh, ne man damay aller vers plus de transparence aujourd'hui c'est vrai c'était une pratique de tous les temps le budget de l'Assemblée nationale dañ ko war a indi commission des finances ñu waxtaane ko ça n'a jamais été fait jamais je pense qu'on s'oriente vers ça parce que dans les discussions qu'on a eues avec on s'oriente vers ça est pour aller vers ça surtout que vous vous êtes le président quand même de la commission des finances je l'ai dit dans le débat budgétaire qu'on a eu cette année wax nañ ci ne naam fekkoon nañ ñu def projet de budget assemblée quand on installait la législature actuelle mais que pour l'année prochaine il faut qu'on s'engage à aller dans cette direction-là pour que le budget de l'Assemblée nationale soit examiné en commission des finances et que après les instruments de contrôle qui sont mis en place soient contrôlés. et je pense président, que le président euh, euh, honorable député euh, lors de l'examen de la motion de censure et même déclaration de politique générale du premier mmh. ministre euh, député opposition yu bëri dañ ko interpeller justement sur les questions de bonne gouvernance de lutte contre la corruption ba tey yaakaar naa tontu wu ci en tout cas li ñu doon xaar mu tontu ko ci mais je pense que il n'en a même pas fait cas si je me rappelle bien de ses réponses ci ñaari cadre yëpp euh, d'abord yow noonu nan nga ko analyser et deuxièmement euh, est-ce que fas ngeen yéene ci li leen yoon may ci mm-hmm. seen règlement intérieur ak ci constitution bi ngeen poser véritablement ce débat là avec le gouvernement soit à travers le ministre wala yeneen cadre waaw xam nga euh, Souleymane d'abord le, le Premier ministre a reçu la motion de censure avec un exposé des motifs donc moom bi muy ñëw Assemblée nationale sa structure de réponse était liée à cela maintenant c'est dans le débat que des députés ont pris la parole certains pour poser des problèmes de justice d'autres pour poser des problèmes de troisième mandat d'autres pour poser donc en réalité on a eu ce problème là et moi-même d'ailleurs j'ai dit quand on prépare un euh, une motion de censure avec un exposé des motifs il faut que débat bi porte sur l'exposé des motifs. mais loolu euh, si déclaration de politique générale. bi oui, nañ ko ci débat bi il a pas la DPG lui-même dans sa déclaration a dit de manière très claire qu'il faut qu'on s'oriente vers beaucoup plus de transparence dans la gestion des deniers publics le premier ministre a fait l'annonce avant qu'il y ait le débat. Voilà. dans sa déclaration. dugal na ci ces éléments de gouvernance parce que moom ci boppam il considère que nous sommes dans un environnement de raréfaction de la ressource publique et que loolu pour ñu mën a atteindre les objectifs de développement yi am il fallait que dans l'exécution qu'on aille vers pour la recherche d'efficacité d'efficience et de transparence je pense que ça il l'a bien campé dans sa déclaration de politique générale mais de manière générale de manière générale j'estime que c'est un le Sénégal doit aujourd'hui ouvrir Parce que sur beaucoup de questions, parce qu'il faut aussi mettre le, les populations en confiance. Mm. Et sur beaucoup de questions, se pose le problème de la confiance par rapport aux gens qui sont en responsabilité. Mm. Il ne faut pas occulter ces questions-là. Et je pense que ñun am nañ ci rôle bu ñu ci joué gouvernement bi am na rôle bu ñu ci joué et aujourd'hui la la chronique que tu viens de faire Souleymane c'est une chronique qui, qui ouvre les yeux à beaucoup de mais sur la base d'une analyse pertinente bu adossé wu sur des mais pas ay wax nii parce que ça aussi il faut que dans dans la presse quand on des questions il faut qu'on aille au fond des choses comme tu viens de faire bi bari na dina Souleymane président impunité li mu wax ni Souleymane wax te opposition bi aussi yàgg nañu ko wax maanaam dañu constaté benn genre impunité surtout bu fekkente ni dafa am ñu ak président Macky Sall rapport yi chaque fois c'est des institutions corps de contrôle ñoo koy wane avant cour des comptes y a eu l'ARMP mais sans suivi ni rien. waaw mais nañu waxante dëgg rek. jamono président Ablaye Wade. mais tëj na fi opposant tëj na fi opposant ndax loolu Khalifa Sall a été emprisonné pour ça. dama ne que de manière de manière générale de manière générale nous avons dans nos pays un problème de relation avec la transparence dans la gestion des affaires publiques loolu ku mun neex ku mu naxari loolu moom moo nekk maintenant yan instrument la ñu war a mën a jël mettre ko en place pour lutter contre ça. quand le président Macky Sall est arrivé il a mis en place l'OFNAC xam nga gars yi quelquefois aussi dañ lay jox instrument nga nekk ci biir mais da ngay doxal say responsabilité c'est-à-dire moi je n'ai pas d'état d'âme par rapport a une structure mise en place pour lutter contre la corruption et qui fait son travail. mais OFNAC fait son travail attention OFNAC day def liggéeyam on a entendu l'ancienne présidente Seynabou Ndiaye Diakhaté def na liggéeyam la may ah. le procureur il ah. relève de l'autorité du pouvoir judiciaire. est-ce que man maa koy jàngal liggéeyam est-ce que je suis plus patriote que lui. est-ce que non non non attends est-ce que aussi le procureur sur la base des informations qu'il a reçues de l'OFNAC parce que ma lan la jot. est-ce qu'il suffisant les arguments apposés pour pouvoir déclencher des poursuites judiciaires parce que c'est lui qui est maître des poursuites est-ce qu'on va lui demander de faire son travail à sa place ça aussi c'est une question qu'il faut se poser mmh. merci euh, merci euh, dernière question El Hadj euh, Malick mooy li xew assemblée seen collègue député yi nga xam ne caabi féete na leen gannaaw am na ñu nga xam ne dañu jàpp ni flagrant délit la am na ñeneen ñu nga xam ne xëy na ñoo leen di défendre jàpp ni député bu nekk ci session kenn waru ko topp ba di ko jël di ko yóbbu ndungu siin ban taxawaay nga ci am ak ban gis-gis bon loolu aussi vraiment dafay poser le problème xam nga ñun suñu juristes yi fois réew mi problème yu bëri bu amee du ma ne juriste yëpp waaye interprétation juridique bi ñuy def ci suñuy texte alors que le texte il est clair uh-huh. député boo nekkee session boo commettre flagrant délit immunité mënul prévaloir est-ce que li xew assemblée flagrant délit la wala du flagrant délit loolu kay jarul nga nekk juriste jarul nga nekk magistrat jarul nga da ngay tijji sa bët nga xool ndax lii c'est un flagrant délit d'agression d'une dame dans l'hémicycle devant des magistrats devant le ministre de la justice même bu dul woon magistrat ministre de la justice mais les faits sont patents les faits sont là est-ce que c'est un cas de flagrance si c'est un cas de flagrance l'avocat qui demande l'immunité doit aller revoir ses cours de droit pénal et ses cours est-ce que assemblée sax warul woon jël ay matuwaayam ci wàllu règlement intérieur am ak discipline de de de de l'hémicycle pour sanctionner député bu nga xam ne da nga def lu nga xam ne teguwul ci yoon loolu am na disposition xam nga article 53 règlement intérieur dafa ne bu fekkee ne dafa am la commission d'un délit pendant que nous sommes en séance mhm. le président de l'Assemblée nationale am na jumtukaay bu ko permettre mu def immédiatement un PV saisir le procureur de la République c'est ce que le président de l'Assemblée a fait am na aussi des possibilités de sanctions en cas de perturbation de nos travaux en séance par le rappel à l'ordre mën nañ dem ba exclusion ak exclusion ak censure pour éviter nga amaat sax prise de parole ci séance bi ci topp mhm. yooyu yëpp c'est des dispositions qui existent xam nga en réalité ñun ñëpp ñoo war a xoolaat suñu bopp mhm. on est dans une société qui est devenue extrêmement violente. extrêmement violente. à tout point de vue. la société elle est violente il faut que ñun ñëpp ñu xam ne en réalité les députés qui sont à l'Assemblée c'est aussi le ce sont le reflet aussi. de la société, de la société sénégalaise. c'est ça. Absolument. il faut que objectivement ñu on ne peut pas bâtir un pays dans la violence. Mm-hmm. je respecte les députés de l'opposition il y en a parmi eux qui sont des cadres brillants avec qui on a en commission pendant le vote du budget quand bien même ils leur posture quelquefois politicienne mais nous au de Benno aussi quelquefois on a des postures politiciennes donc nañ ko nangul ku ci nekk mais ñu jéem a tirer li mm-hmm. positif ci mm-hmm. pour jéem faire avancer notre institution c'est sur le règlement intérieur règlement intérieur assemblée nationale parce qu'on parle de falsification gars yi dañ leen règlement intérieur daal di. Ah, xam nga loolu loolu aussi. waaw c'est mon grand frère Mamadou Lamine Diallo qui a posé ce xam nga falsification foo ko def shérif mooy da ngay transformer une situation réelle pour tirer un bénéfice de ça loolu ngay falsifier doo falsifier loolu amul lu njariñ mais ce qui s'est passé en fait c'est pas ça ce qui mooy xam ngeen ne décembre 2000 euh, décembre lañ dindi woon euh, le poste de de premier ministre décembre non on l'a ramené en 2021 on l'avait enlevé avant en 2019 2019 2019 bi ñu koo dindee règlement intérieur bi ñu amoon mooy bu 2015 moo doon dernier truc toutes les modifications n'ont jamais été intégrées dans le règlement ay annexe la woon alors bi ñu dindee règlement intérieur bi ñu dindee poste premier ministre 2019 ci loi constitutionnelle bi en même temps dañu dindi woon tout ce qui avait trait aux dispositions sur le Premier ministre et rapport avec l'Assemblée nationale dans la loi constitutionnelle. En 2020, le président de l'Assemblée nationale demande même de conduire un groupe de travail pour ñu reprendre la refonte du règlement intérieur ñu waroon ko def en deux étapes lu urgent par rapport au budget ak li ñu war def après quand en 2020 on faisait ça Mamadou Lamine Diallo était dans le comité tout comme Cheikh Abdou Mbacké Aïda Mbodj se réunit on a travaillé sur projet bi ñu paree ñu présenté ko assemblée mais booba temps euh, on n'a pas enlevé de la du règlement intérieur de 2015 les dispositions relatives au premier ministre donc disposition yooyu dafa desoon ci règlement intérieur format 2000 2015 qu'est-ce qui s'est passé avant ñu ñëw ci législature bi le président Niass avait dit comme dafa bëri ay text yu nekk à côté te lépp modifier na règlement intérieur bi il fallait que ñu faire migrer ces textes ci benn édition bu bees donc édition bu bees boobu objectif am moo doon textes yi nekkoon à côté hmm. ñu indiwaat leen reverser leen ci règlement intérieur bi donc la base du règlement intérieur dafa des le règlement intérieur de 2015 oui. qui comportait les articles relatifs relatifs au premier ministre mm donc loolu mooy wax bi donc bi ñu ko migrer Oui, très rapidement. Le, le président Mamadou Lamine Diallo a mm. dit que c'était une falsification parce que l'Assemblée ne connaît pas le règlement intérieur, le, le Premier ministre. Mais en réalité, mm. le Premier ministre, ces dispositions-là n'avaient même pas besoin de figurer dans le règlement intérieur parce que c'est des dispositions prévues par la Constitution. Qui est la norme supérieure. Là où la Constitution mm. prévoit mm. un Premier ministre et des rapports avec l'Assemblée, il devient même superfétatoire. ci règlement intérieur nga dugal ci les mêmes dispositions. merci beaucoup merci honorable Seydou Diouf moom moo jiite commission finance assemblée nationale di la sant di la gërëm bu baax a baax ci wuyu si bi euh, léegi dañuy jàll ci nu l'observateur ak record.